ci yéen ñëpp jàmm ñaan googu yàlla na ne ci ñun jàmmi àdduna ak alaaxira gi tax ñu topp sëriñ bi yàlla na ne ci ñun ndax kat sëriñ bi buñ koy topp jàmm rek lañ jublu ci topp gi bëgg am jàmm ci sunuy xel am jàmm ci sunuy xol am jàmm sunuy ruu am jàmm ci sunu digganteeg àdduna am jàmm barzaq am jàmmi ëllëg defe naa ñun ñëpp nangu nañ ne looloo tax ñuy topp Sëñ Tuubaa ko defee jàmm jooju li ñu koy may muy ànd ak moom wuy ci ndigalam bàyyi ay tereem te di ko sopp sopp gu amul ab te di ko roy te di ko bëgg te di taataan li mu jëf ak li mu wax ak aw meloom ñu di ko taataan te di ko waxtaan allah bu ko defee yàlla na nu yàlla may jàmm ci wet yëpp ñuy delloo ziar bi ak nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Xaadim Rasul di ko ñaanal ak yàgg di ko ñaanal wér di ko ñaanal mébit yi mu am yëpp yàlla na ko mottaleeg jàmm te nu ko ko mom te yalla buñu nu ci kenn ëppale sak la ci l'islam bëpp sak la ci humanité suñ mën humanité bëpp suñ mën taxaa la ci ñoom te doom adama yi tiit ci mbon gi ni bare bu ñu gisee ne yàlla nga fi bàyyi ku mel ni suñ mën ñi tiitoon seenu tiit day wàññeeku dañu daal di amaat ndax nit yu amee valeur ni moom amee pas-pas ni moom amee yitte ni moom amee yar ni moom amee yërmande ni moom fekk ñu ngi fiy nekk rek bu ñu yeboo suñu xel di dal te Serigne Touba jamono bu ne ñu mel noonu la ñuy jox waxtu wu nekk bu jamono doxee ba nëx-nëx yi bari fekk na Serigne bi moom. defar na koo xam ne ba mu ko defaree yàgg na ngir xamoon ne nax-nax yi dana mel nii te ku mel nii rek moo mën a jëfalanteeg nit ñi ba tàggalee leen nag la cay war a juddoo teg leen ci yoon euh, yonent yi buñ leen daan yónni ci xeet yi xeet yi ñu di yónni feebar yi ni ci xeet yooyu ak ricc rëcc yi ne ci xeet yooyu ak ñàkk xam yi ne ci xeet yooyu yonent bu ñëw melokaan woowu ngay yor dangay mel ni doktoor bu ñëw ñu ne la dëkk bi kat ñëpp feebar xol la ñu am ñu ne kon nañ fa yebal cardiologue yonent yi noonu lañ daan ñëwee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa daje xeetu feebar yépp kapp jamono feebar yëpp yonent yu jëkk yi sax benn feebar lañ daan ñëw di faj waaye Seydina Muhammad moom bi mu ñëwee dafa dajeek jamono daj kapp ak xeetu feebar yëpp nga xam ne ban médecin moo ci baax médecin généraliste yonent bi mooy médecin généraliste médecin généraliste amul moom mooy médecin généraliste feebar yëpp la mën a faj feebar yëpp la xam fu mu jóge xam lu ko sos Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee roy sunna yonent yooyu xalifa bu mu fi wàcce xalifa ba bu ñëwee day dajeek feebaru jaam yi moom ci boppam mooy garab di koy faj euh, Sëriñ Saalihu Mbakke mu nga xam ne moo waral bis bi tey yal na nu yàlla tas ci barkeem te yokk xéewalam te yokk leeram fa mu nekk li tax ñu koy ñaan mooy Serigne du nit ku yem fenn yemul fenn moom lu tax yàlla la fi nekkal yàlla boo ko fi nekkalee doo yem fenn ndax yàlla yemul fenn kon ba fi nuy waxe fa mu nekk ump nañu xamuñ ci lu bari waaye xam nañ ne fa mu nekk benn yitte la am ñëwaat jamono liggéeyal sëñ Touba murit bu nekkal sëñ Touba xalifaam ak dong yi ñun dong yi nii koo ci gis bis bu delloo ci boromam yàlla na yar bu ca delloo li muy jëkk bëgg bu gisee li sëñ Touba doon li muy jëkk bëgg mooy dellu si liggéeyal sëñ bi ndax sëriñ bi wax na ne ña nekk barsàq ñëpp boo leen laajee lan mooy seen yitte dama bëgg leeral li may wax ba ngeen xam li may wax nee na ñoom ñëpp benn baat ci la ñuy maase mooy delluwaat benn minute walla benn seconde rek jaamu yàlla dellu si ngir xam nga lu tax loolu nit andiwu ñu ko ngir leneen jaamu yàlla sëñ Muntaxa dana koy wax dinañ ci ñëw jaamu yàlla rekk moo fi andi leneen andi ñu fi loo ci gis loo fi gis bu ko defee dañ naan waaw soo ko waxee ku dof danaan ah jaamu yàlla kese nit ki du liggéey du nangam dégg dafa baax ci nit yàlla nu ko yàlla mooy jaamu yàlla lépp lu la yàlla defal ci kaw suuf andil la ko saxalal la ko ci kaw suuf andi ko ci xéewal mu génn ci suuf si loolu yëpp jaamu yàlla gi la la bëgg a yombalal daa bëgg sax nekk fi tege ci yoon ba nga mën koo jaamu rek waaye jubluw ci loolu mosoo gis ku yor oto bu jar deux cent million ñu gas pax ci wet gi ne seet leen ndax oto bi xaj na ci yooyu kon li sëñ Muntaxa wax yooyu jarul jàpp ba mu xañ la jaamu yàlla ndax kenn du la ko robaale léeg nga gis ñoo xam ne ñàkk ñàkk xam yàlla ci yeneen yeneeni askan da ngay gis ñuy wax ñuy wax loo xam ne yow da ngay sax ci yàlla mooy dangay gis ci yeneeni diine yeneeni xeet ku ñuy rob boole ko ay or rek takkal ko ko takkal ko west bu rafet solol ko west bu rafet ñun sax weddiwuñu kenn waaye solol ko dàll yu rafet waaye dàll yooyu mënuñu ko woon jox nit mu mu sol dàll yee day ànd ak yaram wi rek yàqu bu ko defee ñu defar ko ba mu kii kon nag islaam am na tubaab bu gisoon loolu ba gis ñuy denc benn buur ci lislaam muy roi Hassan II journaliste tubaab bi bu mu gisee ñu gas suuf si mu gis xeer yeeg yépp ñu lëmas buur bi ci euh, perkaal di ko dugal lan mën la lislaam jaaxal na ma journaliste tubaab la ndax mosul fekkee robu jullit ndeysaan ndekete mu ne jullit ñoo ni ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xolu buur bu toll nii laxas képp def ci suuf bàyyi ko boromam la jullit yi def jullit yee wax dëgg waaye solo la wes takk solo lay dal ak jël ay ceen takkal ak yooyu yëpp ndekete amul njëriñ kon lii boo gisee ma tàmbalee ko suñ mun taxaa jamono yi day wax ne wërsëg wi tax xel yi ñoom ñi ñun ñëpp dem nit ñi seen xel yi nekkatu fi ndax wërsëg seen xol yi dalatul ndax wërsëg kenn ku nekk li muy lijjanti mooy bu la waxee sëriñ bi wala mu wax la yàlla wala mu wax la alxuraan it xelam a ngi ci waan nu may def ba am nangam te sëriñ Muntaxa nee na loolu jarul sonn kàddu sëriñ Tuubaa lay waxee na seen Saaliw Mbàkke mi tax ñu kii bés bi dinañ ci ñëw waxoon na ko nee na sëriñ bi nee na ñaari biir la ñëpp am jaam bi ñaari biir la am dañ koy fàttalee nda dégg ngeen ko wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin xam ngeen tax alxuraan wax ne wa zakkir dee leen fàttale fa inna zikra tanfaul muminin nga saa bu la nit ku baax waaree ba nga waaru fas ku yéenee jëfe seytaane ngi yebal njabootam ñu ñëw taxaw ña la gis nga loolu boo ko toppee doo dem fenn defal nangam ak nangam doxal sam xel nag yow tamit ndax li ñuy wax nii kat fàtte ko te te dem def li ngay def du loolu moo tax ñu bëgg ñuy fàttali nit ñi lu baax ndax doomu aadama dafa bokk ci ra yi. maanaam fàttekat yi te sëñ taxa wax na ko fan yee rek nee na lenn moo ñu sonal sunu càggante ak fàtte waaw léegi sëñ bi koo xam koo xam ne kii évaluer nga sag fàtte ni mu toll évaluer sag càggante ni mu toll war nga foo toll ñu lay fàttali hmm? yaa ayyuhan naas bu ko alxuraan waxee naasu mooy man nasiya kuy fàtte te li tax aadama ñi juddoo ci moom ñu leen di wax naas wa laqad ahidnaa ilaa aadama min qablu fa nasiya yàlla nee na dama kóllëranteeg aadama bind ko yóbbu ko àjjana mu fàtte loolu kon dañ ñu war di fàttali ndax ñun ñi jaamu yàlla nu fi andi waaye dañuy dem ba defe ne wut moo nu fi andi ak ëppalante daraja alhaakumu takaasur xataa zurtumul maqaabira xoolal loolu kenn ku nekk li nekk sa xel mooy nu may def ba ëppale ñëpp te mënoo ëppale ñëpp lu yàlla narul ci yow mënul nekk loolu moom nañ ci noppalu ñun ñëpp sëñ Muntaxa wax na ko fan yee nee na bu bu leen sonn ci wërsëg wi ndeysaan wax na ko ay yoon jamono yi sonn leen ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi ndax wërsëg wi doomu aadama moo ñàkk xam ba defe ne moo koy fàmm ba defe ne moo koy jox boppam te nit ki bu matagul nit nekk fil arham ci biir waajuram la lañuy fàggu wërsëgam loolu loo ci mën kenn ku ne li nga nar a am ba dërëm ba ngay mujj am bi nga laata juddu fekk na suñ borom noppi ci xam nga loolu bu ko ñëpp xamee woon noonu lu bari du am waaye nit ñi gëm nañ ko ni dégg nañ ko nii waaye gëmuñu ko xam nga luy tax gëmuñu ko mooy li ñuy jëfe moo lay wan ne gëmuñu lool ndax xëccoo alal ak xëccoo daraja Cheikh Ibra neewoon na nag ba ngeen demee ba mujj jamono ñaari deel yi moo leen di lijjal huit doom ak daraja dërëm ak daraja dërëm ak daraja boo ko defee ñu xam ne ñun benn manoore lañu am benn cir lañu am mooy jaamu yàlla wa maa xalaqul jinna wal insa illa liya'buduun loolu dégg ngeen ko ba tey bindu ma nit ak jinni ci lu kon lépp looy def nañ ci jublu jaamu yàlla lépp looy wax na doon jaamu yàlla lépp looy def na doon jaamu yàlla loolu moo jig nit nit leneen jigu ko de ndax leneen lu mu wut lu mu bari bari bari bari bu ko fi bàyyee lañ ca def ci ginnaawam moom lañ koy yónnee ci bàmmeel te nit ñaa ngi dajale rek di fi ba kon ñu góor góorlu ci fàttaliwaat suñ bopp la sëriñ Saliou daan wax ñaari biir yooyu nee na kon biir bàmmeel sëriñ Saliou nee na Serigne Touba nee na biir bàmmeel moom loo fa deful doo ko fa fekk kenn du la ca defal dara loolu moom na leer te fa ngay mujj te foofu xaalidiina fiiha abadan la tudd danga fay sax ba faw amul temps nag dootul yem fenn loolu gars yi mat naa xalaat de sëñ bi gars yi ñu ngi ñuy fàttali dund ëllëg. ñun ñëpp ñu mel ni fa suñu yoon nekku ci te te fii nii boo dundee téeméeri at ñëpp ne yàgg na te foofu xaalis diina fii abadan ñaataat la kenn da ko mën a calculer sax ba faw rek te diggante su gàtt si ci lañ la ne nga faggu fa ngay saxe ba faw la nga fay saxe fàggu ko fii yow nga topp àdduna topp àdduna hatta zurtumul maqaabir kala sawfa taalamuun summa kala sawfa taalamuun mhm. dégg nga yàlla waxinam ak ma sa ragal mhm. wallaahi déedéet di ngeen xam de te it di ngeen bu ngeen àggee ci xam di ngeen xam foofu nag balaa ñu fa àgg yàlla nañ fa am yàlla ak sëriñ bi ñun ñëpp yàlla nañ ko fa am ci barkeb suñu Muntaxa di soññ ñëpp di soññ suñu bopp ci ni Serigne Saliou nekke woon ci jamono ginnaaw dañu wax ne enseignement ñu war a tiiri ci Serigne Saliou enseignement yi nag baatin bi ci bokk ndax ñun baatin suñu yoon nekku ci waaye xanaa sañ nañu lim jëf ñu di ko gis sañ nañ ko waxtaan looloo gën nit ñi bu ñu bëggee bañ a jëfee li leen wan baatin la ñuy waxtaane xam nga yàlla xàmmee na lépp ni ñi dañu defe ñoo gën a muus yàlla bu ñu bëggee nëbb seen ñàkk topp lu baax dañu dajaloo di wax ay baatin di daanu rek boo ko defee di yuuxu rek bu ko defee ku ne masqué li la waroon te defoo loolu yàlla xàmmee na ko de inna allaha yaxlamu maa yusirruuna wa maa yuxlinuuna li ngeen di nëbb ak li ngeen feeñal yépp laa xam kon kooku noonu jarul nëbb dara di ko maske ci dara ci dara buñ ne sëñ Saliou rek nga tàmbali naan ba mu defee nangam ba mu defee nangam ak ba mu ne diw nangam ak ba mu ne diw nangam loolu yëpp du mu jariñ li ñu jariñ mooy jëmmi boppam bi mu fiy nekk ñuy ay nit di nit ñu sensé ñu am xel muy jëfandikoo lu xel xam di jëfandikoo lu nit ku niti xam loolu la ñu war a roy ci moom sëñ Saaliw nag ah, jikku yi gën a jafe ci jamono bi mu ñëwee moom la àndi ndax docteur la woon dafa daje woon ak ñu bëgg àdduna bëgg dara bi leen li ma leen di wax de sëñ Saaliw feebar bi mu fekkoon ci jamono mooy nit ñi dañoo bëggoon ak kilifteef bëgg àdduna bëgg dara mu ne tëll ci seen biir ëppale leen lépp àdduna ak daraja ak xam-xam ak egg ci yàlla mu ëppale leen ko ba noppi bàyyee leen ko gën a oyof ci jaam ñi loolu kat loolu kat am njàngat la de gaay sëriñ Saliou xool leen daraja bi ko yàlla jox te mënoo gis ci jëmmam lenn lu lay wan ne borom daraja la yéen gis ngeen ko maanaam fu mu nekk bu dul da ngay ñëw ñu ne la mooy kële boo dëkkul ci réew mi boo ñëwee da ngay defee ne mag mu ñu teg fee rek la waaye kii doonu dara ci yëf yi te lépp a ngi ci loxo jullit ak xam noonu lay mel buñ ko doon firiteen dañ naan nan lañu ñu tënkee Serigne Saliou mooy jullit ak xam jullit ak xam nag buñ koy wax ñu bari dañ ko daal di yemale fenn waaye jullit ak xam day doon jullit ci jikko doon jullit ci melo am na tubaab boo xam ne bi mu jógee ci réewu tugal yi di def enquête. ñu naan ko nit ñi murit yi dañuy dajale seeni alal daa am kuñ koy dajaleel mu ñëw M6 moo ko defoon mu ñëw ba senegal waaye waaye waaye bi mu gisee Serigne Saliou dafa tiit dañuy wax murit yi kër kër gi ñu kër kër yëpp kii kii la bëgg a liggéeyal kii ndax melow wu mu fekk Serigne Saliou mu ne sa sa laa kii kii moom la murit yëpp di liggéeyal nga xam ne wàcc àdduna ni mu ko defe woon te àdduna ne ko yow la àdduna ne ko yow la mu ne àdduna du man àdduna ko ba ba ëllëg yow la wallaahi noonu nag dialogue boobu la def ak àdduna wan ko ne ko faale mëla benn cir amoo ko ci man sëñ Saliou àdduna amul benn cir ci moom dann nag وسر من يعيش te loolu mooy combat bi gën a jafe ndax am na nit yàlla koo xam ne kii bi ñu ko laajee bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa gis Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ku la gën a jege ci sa xeet wi kan moo la gën a jege ci xeet bi umma bi yëpp lu ci gën a jege mu defe noonu yonte bi da koy wax borom tariixa sàngam wala saxaaba sàngam wala yonent bi sàngam yonent bi jox ko benn définition te définition boobu Serigne Touba ñi mu meññ ñëpp ci liñ taxaw man taraka dunya wara a zahrihi waaye foofu waxtaan dafa ne de yonent bi ne ko mooy ki nga xam ne dafay wàcc adduna bu mu wóor ñëpp te ginnaaw la ko sànni waaye nag dinaa leen di faral di wax ne àdduna nag wacc ko ak mu wàcc la bokkul li léeg gis ku naan daal dëdd àdduna fekk àdduna ko dëdd du ko mënta am rek boobu boobu dëdd nag amul benn sens waaw mhm. waaw boo waxee dëdd àdduna nga gis ku sol caay ju bënn dégg nga tegale juróom-ñaari mbubb naa ñun àdduna moom dañoo def ni sëñ Saliou sànni ko déedéet fu ñuy xamee ne sànni nga ko mooy mu wuyu la jël lépp jox la nga teg ko fa loolu moo jafe kat waaye yoroo dara di dëgg hmm? hmm? loolu du dëddu àdduna ñun dañuy nax suñu bopp ci yenn définition yi ni ñu koy ni ñu koy defe ak di ko waxee dégg nga te kat kooku la ne daa dëddu àdduna bëgg na daraja dara boo xam ne boo ko fekkoon ci mbooloo nuyu woo ko képp mu jàng ñaari maraatim ma yàlla na faatu maa ngi wax mu may mbañ maa nuyu te neen daa dëddu àdduna te ku dëddu àdduna ku la nuyoo ku la nuyuwul ñoo yem ci yow ku la màggal ak ku la màggalul ñoo yem ci yow ku la yëg ak ku la yëgul ñoo yem ci yow benn la ñoom ñaar ngay yemale maanaam doo am soxla sax kii defe ne kilo fonk moom ngay gën a jàpp déedéet boo dëddoo àdduna dëgg te yàlla tax ki la gën a fonk ak ki la gën a bañ waxuma ne dangay jël kii teg ko ñoom ngay yem na jàngat yi ñu war a jàngat ci Serigne Saliou dafa bari boobu moo ci jëkk Serigne Saliou bu jëkk deux la daan dugg xam nga nit ñi léegi lañ ko xam di wax deux la amoon. dëcër bi nee na moo gën a nooy nee na buy daw du yëngutu yëngutu bu la yëngal ba moom la daan dugg dëcër ba fa mujj dama ko wax fii ndax nit ñëw àbb ko ko daan daan jaay naa ko ko jege la ne ko jaay naa sa bi sëriñ Saliou bokk ci te boobu nekkul xalifa sëriñ Tuubaa de nit ñi ne ko nag kii Mbàkke nag dañoo war a wax ci moom yow oto bi moom ngay dugg mu jël ko jaay sëñ Saalum ne nañu ma ko wool mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko maa ngi soog ko xam ne def nga ma ne ci sa bopp jàppe nga ma ni nga jàppe sa bopp maa ngi koy soog a xam ndax nit fekk àggul ci jël sa alal dem jaay ko te tagguwu doonagu leen benn da ngeen wax rek sama gars ku ci jël seen alal dem jaay ko naan ko wëllëre fa la gi yem ah yooyu leen ma rek ah, <laughs> àbb fi oto jàmbur jaay ko nga xool kooku nee na ci laa xamee ne sëñ Saliou mi fi mu nekk te boobu sëñ Abdou Lahad mu ne ko maa ngi te nee boobu rus naa rus goo xam ne ndax neen dama am soxla dem ne benn waaye dama lay jaay oto bi oto bi sëriñ Saliou te da ko ko àbboon sëñ Saliou lim def yëpp sëñ basum sëñ baax nee na ma sëñ Ndiaga mu ngi ma ko nettalee Suisse nee ma toog na ma ak sëñ Saliou ñuy waxtaan ma ak sëñ Abdoulaye ñuy waxtaan. nee na ba fekk ñu ko ndax sëñ Abdoulaye bu ma saan toog fenn kenn du ko fa fekk te woowu la mu na ma Basiru nañ toxu ca kër gee nee na ñu ne fay waxtaan ba mu yàgg am ku ñëw déy sëñ Abdoulaye mu ne ko nekkoon na agsi ndeke sëñ Saliou way ñëw. moom xaarul ba doon sëñ Tuubaa mel ni mel de ndeki sëñ Saliou ñëw bi sëñ Saliou ñëwee sëñ Bass Baar nee na maa ngi ko gis mu bokk benn keesu meew nee na boo gisee yëre yi mu sol ak ni mu mel man ne damaa yéemu sax ak mbaxane ni mu sol ak dàll yi mu sol xotti gi mu xotti ne sëñ Saliou ñëw sumb dàll yi fee nuyu sëñ Abdou Lahad daal di di koy jox keesu meew bi. ne ma ne sëñ Saliou daal moo dëddu àdduna ma keesu meew munu ko yónnee rek mu jëral ko mu bokk ko nii topp naaj bi ñu dugg lay kii daal jaaxal na nee na moom mu teg ko fa tàllal loxo sëñ Abdoulaye ñaanal ko mu dem sëñ Bas ne ma sëñ nee na sëñ Abdoulaye ne ma nañ jàll suñu waxtaan mais ñuy waxtaan ba mu yàgg. nee na ma ne ko ah sëñ bi keesu sëñ Saliou Dia doo ko seet de moom de mbiram kenn xamul mu ne ma man maa dem jëli kees gi andi ko ci kanamu sëñ Abdou Lahad mais biñ ko ubbee ñu woo ñu koy wàññi quarante millions la ko jox keroog xam nga yàlla gis nga sëñ Saliou li muy jàngalee jëf nëbb jëf ji ba àgg fa nga bëgg àgg te kenn du ko xam ñun nag eh, sëñ bi. dañuy sasa nga ne maa jëkk joxe ñaari junni ci sëñ Tuubaa mu ne ban jàmbaar kooku li ko sëñ Tuubaa defal te wanewu ko mu joxe ñaari junni di bëgg a rey nit ñi hmm? ku ci jëf dara rek defe ne yaa moom nit ñi te xoolu Serigne Saliou 40 millions nga jox ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa wut keesu meew def ko ci pour ñu defe ne meew nga koy jox nañu jàng yooyu moo gën nañ jàng jëfin yooyu moo gën yii ñuy wax ni buñ ne Serigne Saliou rek nga nga commencé miir xam nga démb laa dégg sëñ Khalil Mbacke muy wax naan sëñ Touba daa bëgg mbindam mi dong yi xam ko xam li muy wax mu ne bu ko defee nga di ko jàng di xam li muy wax di yëngal sa bopp rek mu ne waaye boo xamul li muy wax boo yëngalee sa bopp ci miir bi nga jëm. déggu leen wax boobu de hmm? ah ki ko xam gis nga ki xam li sëñ bi wax dana jommee jommi ba day mel ni dañ koo day moom day def nii rek di bëmb rek waaye du jóg fi mu ki ko xamul nag moom ah day jékki-jékki rek leer gi dugg ko mu tëb dóor bopp bi fi barab yàq lañ doon jàng la ca des dootu ko xam hmm? jigéen ña daw xam nga tey jii jigéen ñi ñu ngi yiw nii boobu daanukat duggoon seen biir léegi nga xam ne ñoo ragal hmm? jigéen ñi <laughs> da gis ñoom ñëpp ñu tëb dootuñu xam li ñuy wax kenn dootu ko xam waaye nag li gënal sëriñ bi waxuñu ne jënd dañ koy compter waxuñu loolu de ndax nit bu àttee ci lu mu waaye xàmmee nañ jël yi nag jël bu raf sëñ Modou Moustapha Mbacke daa am waa joo xam ne dañ ko ne kilifaam nelaw na mu tàbbi ca teen ba ñu génn ko dara dalu ko mu daw dugaat ca teen ba dee sëñ Modou Moustapha ne bu njëkk bi dëgg la moom waaye bi ci des nag da am lu mu doon wane yàlla génn ca ba set yàlla mooy ndaanaan jëll yi léeg gis ku ci daanu jëll toog lu yàgg doo ko gis ci ci waxtaan bi ndekete ndeket ndekete jëll ba mu mujj a daanu da ca am yum ca rax yàlla génn ci sëñ Tuubaa génn ca bàyyi ko jëll ba nag mu naan jamono yi daal sama loos yi mooy am yu ci yëngu ah, ah kay li li li li sëriñ bi bëgg mooy noonu sëriñ Saliou def dégg nga démb moo koy détaillé ci malayka mi nekk asamaan di seet ñuy sal nga xam ne danaan seen benn jëf duma romb fii jëm ci kaw kenn du fi jaar kuy ngistal nee na yàllaa ma teg fii ci bunt bi sëriñ Saaliw lim jëkk a def mooy liggéeyal na yàlla ba jóge fi mos cee ngistal ñi ko am na ñu koy tuddoo dëgg dëgg te ngistalkat yu mag lañu foofu la war a waxee de gars yow nag jëwriñ yaa ne enseignement nga wax de li ñu war a tiiri ci melo sëñ Saaliw nañ wax dëgg nag waaw bari na koo gis muy tuddoo Serigne Saliou wanewu képp la fi nekk te Serigne Saliou dégg ngeen jëf ji ma leen wax musul lekk mbayam musta bay ba lekk ci benn doom te bam jógee di Serigne Saliou ba tey li muy bay ah waxuma ne kenn mën na ko Sénégal waaye yombul lu mu mës a def tamit liggéeyal yàlla ak yërëm jaam ñi la ci jub te xeeti xam-xam yëpp daf ko teetoon xam nga amoon na ay jamono soo ko waxee ñu xamul dañu naan loolu est-ce que am nañ sëñ Saliou amoon na jamono sëñ Saliou dafa am ay journaux yu nekk Moyen-Orient journaux yooyu boo demee ci archives yi ay articles Serigne Saliou la daf daan bind ay éditorial di ko yónnee Moyen-Orient ñu di ko publier ci journaux yi arab yëpp di ko lire journaux yi gën a mag laa la arab al ay yooyu di ci daal bind man maa la ko di ko yónnee am na ku mës a ñëw jóge ci benn dëkk déglu leen baax lii ma leen di wax jóge ci benn dëkk xam naa ko muy Burkina Faso moom Serigne Saliou da ko daa bind lettre muy bind lettre Serigne Saliou <coughs> xanaa xamuloo ne Serigne Saliou wëla réem yëpp fuñ masane ci àdduna day bind lettre di leen yónni ñuy bind lettre di ko yónni noonu la fonke woon kóllëre kooku du mag waaye bu la wonee lettre yi ko Serigne Saliou bind sax da ngay yéemu ci yàlla mu jóge naa ñëw nag sëñ Saliou ne ko moom da dégg naa di ko laaj yu yàgg ne ko dégg naa seen njiit loolu fa nekkoon dañ ko fa dañ ko buum ñu Thomas Sankara na mën a ko waawaaw sëñ Saliou ne ko yor dëgg baax na waaye xam noo koy defee ci nit ñi moo gën dafa yor dëgg te xamul nu mu koy defee ci nit ñi defin ba metti ñu jële ko dégg ngeen doon léeg-léeg gis nag koo xamante ne ki day ne ci këram dégg nga man dégg nga ku julliwu génn kër gi nangam di wax ba far ñépp nag jéppi la te mënoon nga leen a naxtaan di waxtaan ak ñoom def ni Serigne Saliou wax su ma demee ba gisatuma leen. Hmm? waaye eh, wuy leen ma yéen a ko gën a dégg ngeen di xoole ni moom ah damay dëpp de damay dëpp wuy leen ba gis leen ñun nag koo ci àndal boo ko gisatul ne moo xam hmm? moo ko wax de bu fi kenn nan waa ji dafa newoon ci kii sëñ Saali woo ko wax ngir dégg ko su ma doxee ba gis su ma leen dama leen di wëri wëri la wax de ba gis leen su ma leen jiitoo nekk leen su ngeen ma jiitoo moo woyof kuñ koy jiitu su ngeen ma jiitoo ma topp seen ginnaaw lu mu ci teg du mu tàggu mukk mukk mukk ba léegi mi ngeen ak ñun sëñ te ni muy dund ci xol yi ak xel yi nga xam ne mi ngi duñ tàggoom jooju jubluwu ci bu mu fiy nekk mbiram ba bis pinc day ne ci xolu nit ñi te dootu ci jóg gone yi mujj ñëw sax ñooy gën a yëg sëñ Saliou ka ñun ñi ko gisoon déggoo duñ tàggoo la wax duñ tàggoo jeexalul wax waaw loolu mooy seexu murabbi ndekete murabbi lañ doon jàngal sëriñ akub taalibe lañ doon jàngal mooy lan ab sëriñ enseignement yi ñu tiiree ci loolu mooy sëriñ Saliou day wane ne ab sëriñ du toog mukk xamatul fu taalibe ba ne mu jàpp njàmbur ci ku la joxoon boppam ñun kilifa yi ñu daan àndal noonu lañ daan def Serigne Cheikh fal Baye góor da daan jékki-jékki ne ana diw ñu ne ko gëj nañ koo gis de mu ne nañ ma lijjantil fu mu ne waaye sëriñu léegi moom ku ñu gisul it yaa xam yaay fexe ba gis leen rek waaye ndax yaa ngi ci dara ndax nekkoo ci dara ndax yaa ngi ciy loxo ndax da ngaa ne ci jafe-jafe amatuñ soxla ci loolu te loolu moo doon sëriñ bu ma leen gisul dama leen di wëri te man dama ko dund ak sëriñ Cheikh Fall Baye Góor loolu sëñ Sali wax bu ko defee ñu ne ko kooku de am na koo xam ne bi mu ko laajee dañ ko ne mu nga kayaar mu ne lu muy def kayaar ñu ne ko mu nga ci géej gi mu ànd ak man mii ñu dawal oto bi ba ci plage bi. mboolem nappkat yi yépp daw daw wër nu foofu mu ne sama taalibe bu ñuy wax diw lay laaj fii ñu daal ne diw diw diw ñu daw ci boor tefes gi woo ko mu ñëw bi mu gisee sëñ bi dafa tiit ndax moom jàppoon na ne sëñ Cheikh Fall moom jaralu ko

mais Serigne Saliou boo ko daal di ñu jëgaar rek jàpp gone yëpp ñu ngi tëdd buñ ma dabal na ñoom ñu faatu nañ fa duma ko wér ma ne naa daw mu bokk lool boobu si ñoom laata ñu dee mais Serigne Saliou ne teg ba mu yàgg mu ne ko da ngay fanaan ba suba mais du waa ji fanaane ba suba te topp ci jëwriñ ji ñëw mais ba ko jëwriñ ji gisee dafa tiit defe da ko ne xale yu faatu nañ mu ne ko lu xaw mu ah, dañ faa dem ñu ne foo jëpp ñoom ñëpp ñu ngay daxee ñu ngay daw mu ne ko déet sëñ bi dafa bu ma ñaan ngeen ko nee na mu ñëw wax ko Serigne Sall Serigne Sall ne ko ne ku sëñ Mor Talla doomu ma ko joxoon mbubb ma laa ne bu ca benn barke nekkee yàlla bu benn doon ko fàttali loolu rek laa ñaan yàlla waxul moom moom waxul ne moo ñaan yàlla dara de waxul sëñ Touba waxul Cheikh Ibrahima waxul sëñ Mortala da ne taalibu sëñ Mortala bu mu doon sol bu ca benn baax moo tax ku wëttuwul bàyyi faa bu ca benn barke nekk bu ca benn doomu faa daal na delloo hmm? loolu la ñu war a roy ci ñoom kenn ku nekk wut sa melo bopp def li jaaxal sëriñ bi te ñi la war a woon sëriñ bi war nañ la ko wet bu wax ci sëñ Tuubaa dañuy ju wet kenn mënu laa wax nu mu toll bu daan wax ne jox leen ma gone yi donte matuñu maanaam matuñu sëriñ bi ñu jéem cee def la sëñ bi def ci mbal waaye day jëkk jiital ne moom wóor na ko ne matul matul matul di ne mooy lépp di sëñ waaw gis naa kilifa boo xam ne boo ko mosaan ne diw fi nekkal sëñ Tuubaa mun la diir danga naan moom jiite ñun ñëpp sëñ Tuubaa lañ fi nekkal waaw waaw ñun ñëpp moo nu fi bari waaye nag daam ku jiitu jiite ñëpp yilif ñëpp mhm. kon nag Serigne Saliou buñ ko dee roy nan bàyyi xar baax yi kéemaan yi li ma yàgg a wax nañ ko roy royinu nit nañ ko roy royinu xel nan roy jikkoom sëñ Saliou mbooloo mum dugg moo ci gën a yaru tuuti naa sax di wax ak yarub sëñ Saliou seetlu ngeen ko mbooloo mu dugg moo ca gën a yaru benn yoon lay siggi xool ñëpp noppi na ci dootoo gis mu ku ne mu ne nii déedéet wala dara yëngu mu def nii jeexal na ci defaat nii moo tax ndeysaan am na ko dëkk Fimela bàyyam ci ñi àndoon ak tubaab yi la daan gis sëriñ Saliou bu yàgg ci jamono sëñ Tuubaa mu nekk tànk waaye ndeysaan moom mu retraité nag nekk foofu màgget sëtam ñëw mu ne ko waaye yéen seen yoon yi moom nag waa ci beneen tarixa la moom dada ànd ak tubaab yi mu ne ko seen tarixa bi kan moo ko jiite léegi mu ne ko Serigne Saliou mu ne ko kan si kuy Serigne Saliou ah xamoon naa doomi Serigne bi ku ñëw Serigne Saliou de mu ne ko waaw mun ne ko te am kersa ba du xool nit mun ne ko mu ne ko yéen tamit tànn leen keneen kooku kerse gi dana tax du leen mën a jiite xoolal loolu ne ko kooku nga xam ne ba ma dalee gis nit ko am kerse bu fii mu ne gisuma ko mel ni moom nanguwul sax xool nit ñaari yoon du ko nanguwu ko na xool image yi foo ko fekk nii lay def sëgg ñun nag dañ lay xool ba di xool sëñ bi ba naan sëñ bi de baaraam yi ni mu ko ñëw ak sëñ Fallou yow loolu. Hmm? Hmm? sëñ Cheikh Fall Baye góor dafa mës di naan ñu jox ko ndox muy naan xam naa nag am na ku muy waxal ci jotaay bi mu naan ba noppi daal ne li gën a bon ci taalu bi mooy ñu tànqal sab sëriñ ndox ca ndaala ngay xool ndaal ñuy àndi pot bi ngay xool pot bi ñu jox ko sëñ bi ngay xool pot bi sëñ bi di ko naan nga di ko xool ba sëñ bi naan ba noppi li ci des nga mottalee ko sam xel ndax mën a xool hmm? yaa xam ñu naan fii waaye bi ma rombee doxin ak ak nuru sëñ man leen waaw yéen am na ku mas a ñëw doomi sëñ Murtala ñëw fekk sinu au lieu ñun ñu teral ko mu ñaanal nu benn waaye naan waaye kii daal nim nuru sëñ Murtala daa yéeme léegi kii di sëñ Murtala rek la andi ma ne ko waaw yow nit bu nuruwul bàyyam loolu mooy loolu mooy xas wi waaye nuru sa bay mo normal loolu jarul nur nuru bàyyi jàmbur kay le sëñ Cheikh Fall ni mu wóorul waaye nuru sa bay mu wóor loolu mooy li war a am waaw sëñ Cheikh Fall nee nuru bàyyi jàmbur ak nuru bokki jàmbur ak wóora di nee sa ndey ma du dañ mukk sëñ Cheikh Fall bay góor ñoo ñoo nee na ma ndaka bu say mbokk gàtt yi ñuul mu ne lijjantil ba gàtt ñuul ñaaw rek yow waaw waaye boo njoolee sew xees ah <laughs> waaw ñooñu dañoo mën a jàngale de dañoo mën a jàngale gis nga li ñuy leeral noonu nga defe ne ngir ree waaye ñu ngi lay jàngal ne la loo def dana feeñ moo tax mu waxe noonu dalaa bëgg a wax ne jigéen bu jàddee sax nit ñi dañ ko ko dul wax waaye bu doom di juddoo ñi xam daañ xam ki ko jur de hmm? bokkam rek dañu xam hmm? kon nag loolu liñ ci jàngale mooy maandu jigéen ne jigéen maandu te yem fi mu war a yem kon nag sëriñ Saliou xoolal ma gëm googu mu gëm ci Cheikh Ibrahima ba gëm taalibe doomi Cheikh Ibra mbubbam man de nekk naa Thiès gi waxtaan ku sant njigéen ñëw ci jotaay ba daal wax ne ñun de sunu gàmm gi biñ koy gàmm Serigne Saliou lu ne leen ñuy defal ñun waa njigéen nee nag ñoom bi ñuy gàmm seen gàmm gi sama baay jox ma booli beñe ak xéewal ne ma demal joxal ma ko Serigne Saliou ne ko maa ko def ci gàmmu euh, ci ci gàmmu gi ci Touba bi ma ñëwee moom moo ma ko nettali nee na bi ma ñëwee bu ma nit waxoon loolu te dégguma ko ci làmb yi Serigne Saliou ne du ko gëm ma ko li saa bàyyi wax yëpp ak kóllëre gi nee na ne ko nag waaye nag man dama am sama waxe bopp yu ma la bëgg wax mbàkke dama ragal safara lool te sok lool lu ne danaa ci dugg te xam naa ne safara am na de te ragal naa ko lool fekk sëñ Saaliw ngi taaj mu ne ndab fële doon ko wax na ci dem xéewlu ne bi may waxu jëm ci ndab li laa ko wax lool mu ne ma demal te xéewlu rek diwa nga ne jëm sawara te moo man bokkoon nañ jamono bu amee ma mu ne ma wallaahi ci moom laa ko dégg nga xam ne sëñ Saliou nekk lu fi woon murit ku bokkal jamono la bëgg yàlla yërëm la loolu doon liggéeyam nag ku bokkal jamono rek nga bañ a dem sa yoon te loolu def na ko ba tey liggéey na ko ci sëñ Touba ba am ko kon nag nuy sant ci moom bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla lam nu yéene ba nekkoon feeg ñun yàlla na ko suñu borom saxlal ci ñun la mu jëmbatoon ci nit ñi yàlla bu mu deñ ndax nitu yàlla saa bu jëmbatee ba bàyyi seytaane day jaar ca ginnaaw yoraat yoraat yoraat yoraat kiyam simmiñam di goraat bu ko defee yàlla yebalaat keneen mu ñëw jëmbataat loolu moom mu jàllaat ñëw di gor ku baax ak ku bon ñoo mës di léewtoo ba dem Tuuba léewtoo rek àdduna moom xeex kese la ñoom nag dañoo xeex ak àdduna ba jekku lu jafe sëriñ Saaliwu danga daan dégg mu naan ma kenn ci sama bopp kenn tuutalu ma kenn fàttewu ma kenn daan ngeen dégg mu ne lu yàlla yaatal duma ko xatal déggu ñun na xatal lañ fi nekk koo gis mu ngi naan baax na ku def nangam naan si bët sooba yàlla fii ñu ne daal ku fi new newoo ci dara mës ngaa gis juróomi nit ànd forme dara naa ku newul fii newoo fenn te loolu kenn ku ci nekk fa nga nekk xatal nga yëf yi ba jàpp ne fi nga nekk ku fa nekkul nekkul ci dara am na ñoo xam ne sax nekk ci yoon wi ak kiñ ñu topp ak ni koy toppee jàpp nañ ne ku toppul kooku bokkoo ci yoon wi te sëriñ loolu xatal googu te nga ne ki nga topp dana yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara nga topp ko ba noppi xatal ba jàpp ne yéen juróomi nit yii ànd rek te ne ci ginnaawam yéenay dem àjjan nañu wattandiku di yaatal di xatal lu yàlla yaatal hmm? nañu moytandiku di am koy xeeb ak am koy yëkkati nañ ko jàng ci Sëriñ Saliou bu kenn xatal nañ yaatal yaatal gi mooy na nga fexe ba lu nit ñàkk ñàkk xaj ci lu baax nga fexe ba mu xaj ci lu nit umpale umpale lu baax fexeel ba mu xam ko loolu mooy liggéeyal yàlla waaye mel ni xeetu arabisant yi ma xam nga xam ne bu ñu waxtaanee tuuti daal ne yàlla yëkkati jahannama jahannama waaxu wut si nit ñi baax na daal xam nga moom mu ngi defee ne du ca dem ba dégg naa baax na daal nit ñi lay wax noonu de te xamagul dara ci boppam moom ku ciy waaraate rek balaa nga am jàmm yóbbu ñëpp safara yóbbu sa bopp àjjana yow te moomuñu safara moomuñu àjjana kuy waaraate dangaa war a wax rek li yàlla wax waaye bul wax ku fay dem ak ku fa dul dem loolu yàlla teg ko ci loxo kenn de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane lan yanjuwa ahadukum min amalihi ki gën ñëpp a ko wax saa bay këram liñ tiite mun leen kenn ku ci jëfam mën a musal amul te ñi demoon badar a ngi fi toog dama bëgg ñu dégg loolu de ñi demoon badar ñi ngi toog te ñooñ dégg ngeen li ci yàlla wax waaye yonent bi ne kenn ku sa jëf mën a musal amul saxaaba yi dañoo tiit ba ne ko yow nag wala anta ya rasulullah dégg nga xam nga loolu tiit a tax ñu wax ko ndax liñ daj ci diine ba ba toll noonu Aboubacar Siddiq toog Seydina Omar toog Ousmane toog Aliou toog Talhat ak Zubayr ak Hamza ñooñu daj ci islam nekk mu a yéen ñi kenn ku sa jëf mën a musal amu ah ñu tiit na ko yow nag <laughs> wala anta ya mu ne wala ana man mi sa bopp sama jëf mënu maa musal illa an yataxammadini llahu bi rahmatihi lu dul yàlla muur ma malaanu yërmande benn addis boobu laa mës a dégg sëñ taxa wax ko ci addis yonent bi damaat leen ci kër yu mujj yi addis boobu laa mës gis mu wax ko tari ko nii hmm? dégg ngeen li ma wax sëñ Muntaxa xam nga bariwul lu muy wax ay aaya bariwul lu muy wax ay addis waaye addis boobu tari na ko ñëpp di ko dégg illaa an yattaxammadani llaahu bi rahmati xam nga ne kooku bokkul ci ñi nga xam ne dañuy wax nit ñi ne leen yéen moom sawara ngeen jëm maa ngi leen di wax leen jaam yàlla yii nañ leen ne ku leen di yërëm rek la yàlla bëgg te di leen dimbali ba ñu tàbb ci yërmande loolu mooy yërëm nit ndax man gis naa ci jotaay du ma wax jotaay ba duma wax kan la nit ñi di xam ki may wax moo taxaw ci jotaayu murit ne yéen ñi toog de yéen xaw ma ndax xam ngeen fu ngeen jëmam déet waaye man de duma lakk maa ngi toog ci jotaay Baye Modou Sall ma sëñ Fallou na woon doo dem sawar Baye Modou Sall jóg taxaw ci digg mbooloo mi ne ko waroo ma ci woon a boole nit ñi téye ko ne góor gi daanukat la mu ne ko wax nga lépp de li nga gars yi murit ko yóbbu di téye de ndax borom wàllu yéeg ay toog di la déglu nga mel ni sëñ Njaga defe ne nag yaa xam li ngay wax waxal ci sëñ bi rek boo jëmee ci sa bopp rek lee ñu galgal la te doo ko yëg <laughs> ka lay galgal fee lay toog ba Mor Sall jóg wax loolu nit ñi ne dafa daanu murit boobu ne ah man daal moom moo xam lu mu wax waaye man de wóor na ma ne du ma lakk murit boobu ma leen di wax murit la de ci lakk la dee mook soxnaam ak yaayam eh, gaa yi yoon wi dangereux na de sëñ Fallou nee na yoon wi daa am ay yëf ak yi yëfaat yow yëf yi xamoo ko sax te yëfaat yaa ngi toog di la xool moo tax ñun ñii ne na ngeen ñu ñaanal ñoo gën a dangereux li ñu liggéey toog di wax ñëpp di la déglu te am na koo xam ne wax na ak boromam biir te mu ngi toog ci suuf naan ëskey loolu nag boo ko xamee da ngay tàmbali sëñ bi rek jëm ci sëñ bi. dara du la ci fekk xam naa boo wetu léegi waxtu takkusaan ja bu ko defee ngeen waajal ko mën na wàcc foofu wax bi ñaan suñ borom mu dolli nu xéewal ñun ñëpp biir ak biti déet daa am ñu war a waaj nag pour julli loolu kat nag foog ñu koy kii ci ah déet loolu kat nag cinq heures lañ ma waxoon nag gars yi <laughs> démb yéen itam xanaa xamoon démb dama yendoo waxtaan Ah, ah waaw waaye nag waaw waaye déet jëwriñ moo ma ne kat enseignement yi ñu war a tiiri ci Serigne Saliou ma xam ne yiñ ci war a tiiri moom buñ ko toppoon fii ba suba bu jeex liñ ci xam ñun te kat li ñu xamul ci Serigne Saliou ñun mu ëpp ñun xam nañ loolu ndax am na ñu xam ci moom loo xamante ni lii mbooloo du yàgg ba ñu wax ko ci. bu ko defee. Hmm? waaw waaw waaw mënut ñàkk de waaye nag. Hmm? waaw. <laughs> waaw. waaw nu nu nu nu bokk rek jàpp ne kon ñun suñuy kilifa li tax ñu topp leen topp ñu leen mel ni bàyyi ma bu topp bàyyi ma. wala bàyyi ma bu topp nit nit ku topp nit la dafa am lu nu war mooy na Cheikh Ibra toppee woon sëriñ bi toppi lu mucc ay wu sell woo xamante ni bii benn rëy ba amu ci xam nga man ba may jàng alxuraan nii ba jàng catu ba xare nii am na baat boo xam ne fu ma ko gisee sama xel ci Cheikh Ibra lay dem الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه موم سموك غيسه ريك نا كي دي دنوب شيخ ابراهيم لاي واخ تيري بي بن دوت اموت مانه كوكو دي لا مانه سيري امو دوت تي خولم شيخ ابراهيم سيرك بي نينا موم دي خلم دي جاب لو نيل مان دا خولا خل ني خامي مونوكو تي تي سيرك بي نينا شيخ يورو فال خلم du jàpp lu dul man du toog sax ba xalaat leneen lu dul man kon laa rey ba fii li ci tegu moo lay wan ne yoonu Cheikh Ibrahima mooy yoon wa huddan lil muttaqin ñi jub ñëpp buñ ci tegee allazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salaata yëpp dëgg la waaye la ñi jiitu ñëpp ñëpp ñëpp laa rey ba fii ci lañ taxaw ba ba raw gisoo xeex sax booy xeex ak nit bo bo bo bo boo amee sikki sàkk ne di nga ko daan doo daan Cheikh Ibra nag sëriñ bi nee na moom amul sikki sàkk xolam xolam sikki sàkk du ci fanaan loolu sëriñ Tuubaa ko seedal te murit bu defe ne sa moroom la vérifier sa xol yow ba xam ndax laa rey bi fii yaa ngi ci dox wala doxoo ci te Cheikh Ibra ci baat boobu nga xam ne moo waral alxuraan ci lay dox ci lay doxale it képp ku ko topp kon moom tamit nañu góorgóorlu bu baax ci xam ne roy ko mooy tax mucc Cheikh Ibra mooy tax a mucc mooy tax dund yàlla bu wér roy ko mooy tax mucc ci kiñaan mooy tax a mucc ci riy mooy tax mucc ci aaw mooy tax mucc ci ngistal bu dee roy nañ ko laa wax de te yooyu nekk li naa démb ni muy yàqee julli ak koor ak natt asaka ak dem màkk ak umra ak aj ak jihaad fi sabilillah Cheikh Ibra yi yàq jëf yi gaa ñi def moom lay jikk faggul nitam ba noppi kon foofu lañ ko war di jàngate moom bañ ko jàngate nii ñu koy jàngate nga xam ne buñ ko waxee rek ñu ne ci Cheikh Ibra Fall daal di andi lu lu loo xamante ni lii kenn mënu ko leeral nga wax ko nit ñi jóg dem te fa mbiram nekk kenn mënu fa àgg waaye nag def na lu nit ñi xam c'est fa mbiram nekk baatinam loolu moom xel xalaatul sax di fa àgg waaye nag def na lu nit ñi mën a xam loolu nan ko waxtaan te ñaan yàlla mu dimbali ñu te xam ne takk na garaat boo xam ne ci sëñ Tuuba kenn mënatul a wax ba tekki ko te leneen gis kuy waxtaan ba bëgg ko tekki te ba ko ku sëñ Tuubaa di takkal mu nga ca ñu nu baaxal xadim awwalu man amali amila bihi a Cheikh Ibrahima Fall nee na taalib bi gii ngeen di doxal ci man ki ko jëkk jëfe mooy Cheikh Ibrahima léegi nag wax ji mën naa ñëw kenn ku ne naan sama maama jëkk def lii loolu yëpp dëgg la waaye awwalu man amila bihi awala man aslama ku jëkk jébbalu sëñ Tuubaa ni aadama bi waaye awalu man amila bihi ak taalib bi ki ko jëkk jëfe sëñ Tuubaa nee na Cheikh garab boobu demal ci mininu baaxul xadim sëñ Basiiroo ko bind kon nag ñu bàyyi leen ngeen waajal ndax waxtu bi day bëgg jub te tamit eh, lenn lu nekk nañ ko jox àqam noo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax ñu ne waxtaan bi daanaka jege na ñaari waxtu sant nañ leen ba ana jëwriñ ñoo sant ñëpp sëñ bi wóyal wóyal mu ne ma ñëw moom teel la yi ne niñ nag ab taalibe la buñ koy waxtaane ci ñoom dañ ko bëgg a fàttali lan mooy yoonu murid ñi amoon ngërëm fan la ñu jaar ba am ngërëm mu bañ a fent yoonu boppam bañ a xalaat xalaatu boppam te xam ne yoon wi mooy yoon wi ñu sàkk ngir ku bëgg am ngërëmal sëriñ Cheikh Ibrahima ak tawam bopp te bu ñu nee Serigne Moustapha tudd ndax noonu la ko yàlla tëralee yàlla tëralee boo ne Serigne Moustapha war a waxtaan ci waxtaan ci Serigne waxtaan ci kii bu ñu nee Serigne Mor nga Serigne nga Serigne Aliou tudd nga ñëpp ndax ñoom ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi sa biir morom te ànd boobu tamit na fa taalibe yi di ànd. sëñ Moustapha Fall Cheikh Ibrahima daa wane ci moom lu yéeme ndax Cheikh Ibrahima Fall di euh, donte da dem ci barab ñu wax la benn baatu dëgg ci moom jar na nga paas avion def ci alal bu bari wala nga daw ay fan dem dégg ndax benn baat boo dégg ci Cheikh Ibrahima jëfam baat boobu mën na laa dimbali adduna yi ak alaaka jëfi Cheikh Ibrahima yëpp noonu la tëdd. boo ko defee diggante Cheikh Ibra ak Sëñ Touba am na lu ñu ci xam am na lu ñu ci xamul te loolu ëpp waaye ni Cheikh Ibra def Sëñ Moustapha loolu taalibe bu ne war na koo dégg ba xam ne boo ko mënewul noonu yi war nga ko jéem ndekete ab taalibe balaa ñu xam ne taalibe dëgg dëgg dëgg nga sab taaw dox ci taalibe ba nga xam ne li nga doon wax dëgg te Cheikh daa fexe ba def ko sëñ Moussa Fall Cheikh Ibrahima ci moom la yem ñu bari xamuñu woon ne daa yóbbu woon sëñ Moussa Fall mu jébbalu ci sëñ Tuubaa te xam na ne kat sëñ Tuubaa ku ca def am sa cëru bopp ba noppi cër bii mu yor moom bi moo ko nar doon mu wutal ko cër bu mu am ci sëriñ bi ba noppi dana ko boppam moo tax mu yóbbu ko ci sëriñ Touba mu jébbalu ci moom xanaa xamuloon ne bu sëriñ Touba masaa wax Moustapha woowa leen ma Moustapha ñi xam dañu woye sëriñ Moustapha Mbacke دي مصطفى سامم مصطفى سامم ني خام ييب دا ني خام سي مصطفى الله واي سي ما اني خول كيلي كيلي گم دا جوخ لي ليبم سبتاو تود woow leen ma Moustapha Sam nee na su ne woow leen ma Moustapha Sam moom suñu Moustapha la ñuy wooy waaye bu ne woow leen ma Moustapha dañuy wooy suñu Moustapha muy koo xam ne li nit ñi xamul ci taalibe bi xamuñu ne buñ doon seet coefficient ñu gën a yewwu ci adduna suñu Moustapha ci la bokk ndekete taanu bi dëgg dëgg dëgg ni ma sëñ Ousmane Mbacke waxoon mu rëy ne ma kenn ku nekk ni xelam toll nii ak taanu bi mu toll ndax ak taanu bi xel mu rafet a koy def te Cheikh Ibrahima moom la yore waa këram yëpp nekk nii mën nga leen a gis ni ma doon waxee doomu sëñ Amdi eh, sëñ Amdi Yaasin bi toog ni ma doon waxee ak moom sànq maanaam waa kër Cheikh Ibrahima seenu taanu bi muy nëbb seen xel. di nëbb seen wilaaya ñu bari di nëbb seen nit nit ñi ndax ak taalibe la doxal ba yow doo xa doo jote xam li ci biir te kat ak taalibe moo ëmb loolu ngay xool moo ëpp doole yooyu yëpp Cheikh Ibrahima digganteem ak sëñ Moustapha def na ci sëñ Moustapha loo xam ne maanaam yoonu mu mas a teew fu mu mas teew laa wax kilifa gu mas a teew ak noo mën a toll danga koy laaj sa xalaat kon Baye Fall war nañu xalaat loolu de xam na Baye Fall borom xel mu sëpp mu leer mu gudd la war a doon ñu royee ko suñu saaf euh, Baye Ibrahima Mbodj xool na ko ba mu yàgg dégg li may wax ne fii ci miig màkk ci ci ci kees booba sëñ Fallou daa ñëw di ko gane si xam nga lu sëñ Moustapha Fall wax taalibe te sëñ Moustapha lu mun leen yéen ñëpp laay waxal seenub sëriñ ñëw fi sama sëriñ ñëw fi mbaa dégg li ma wax Baye Ibrahima Mboye ne ñëpp ne waaw mu ne li jëm ci moom yëpp mayu ma ci kenn nga def ko maa koy nee na bu ñam ñu noppee sëñ Moustapha la koy ngeen mooy tànk raxas moo koy taajal sëñ Fallu delloo bunt bi bu noppee mooy teggi ndab bi léegi nag moom boo xawee yàgg sëñ bi am juróomi at kër sëñ bi rek yow moom weesu la nga sa bopp yore danga naan yow aca ànd ndab teg ne sëñ Moussa Fall di ko teral di ko teral ba sëñ Fall ne ndokk bi nga santul Mbàkke waaye borom boo nee maa ngi toog de ndokk bi nga santul Mbàkke boo santul Mbàkke lijul wit ndax melo bii nga yor nee na së ba sëñ Moussa Fall ne ko nee na nee na ma njariñ kooku ak taalibeem kenn yoru taalibe sëñ Moussa Fall moo la kenn kenn mënut a am mu ne ko Mbàkke man sant Mbàkke daf maa jomb nee na keroog la wax loo xam ne ñëpp xam nañ ne ak taalibe yomb la mu ne ko Mbàkke Mbàkke bi bootu ak sëñ Touba man xàmmeewuma leen dégg jooju li ma wax de ñu Moussa Fall sëñ Baye Ibrahima Mbodj nee na maa ngi toog mu ne ko mbàkk mbàkk bi bootu ak sëñ Tuubaa xam ni mu tey tamit mu yoroon na la kenn xamul fitu lan du ànd ak kilifaam mukk maanaam ñuy def kilifaam luñ ko war def mu teew te lijjantiw bu doomi Serigne Touba yi masaan daje dañ koy woow sëñ Moussa Fall sëñ Fallu danaan na ñëw toog ne ko ci ñun nga bokk bu ko defee mu ñëw toog bu ñoom ñëpp waxee ba noppi sëñ Fallu ne ko sëñ Moussa Fall ci xalaat mu ne ko ah yéena ma dugal fii kat mbubbum taalibe bi summi ñoo ko ci bunt yi wax ak yéen ñu bokk bàyyi ba nag bu ma génnee doonaat seenu taalibe ak yow sëñ Moustapha Fall ñu bari xamuñu ni kilifa yu bari yu rëccoon ba sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima demee kilifa yu bari yu rëccoon tàmbale bi nag toppale dañu war a topp doomi sëñ Tuubaa yam dé buñ la nettali histoire yooyu sëñ Moustapha Fall lañ léegi la ma sëñ nàmp ne sëñ Moustapha ba fi nekkoon yu bari ñii di xew ci yoon ñu ngi koy woote doom ndax day ñëw lijjanti ko ba mu ne ngod xam nga ne am na ñu ngeen nu ngeen déggoon sama bande boo xam ne may waxtaan ba ñu demee ndar te kilif bu nekk gouverneur général woote boobu kilifa yi dem nañ seen xalifa yi fi def amul nag ku manqué ci benn tare keroog sëñ Moustapha Fall moo fa wane loo xam ne kenn mësu koo gis ndax am na ci kilifa goo xam ne bi mu ñëwee dafa ànd ak géej bi di ko teg di ko teg la nga ànd ak sëñ Moustapha toog suuf géej bi di ko teg di ko teg ba mu yàgg mu ne ko yaay baabul ulum buntu xam-xam yow la wax ko sëriñ bi keroog sëñ Moustapha daa jóg taxaw te nag genn kilifa nee na ma xëy ba bi mu àndaloon xëy ba bi mu àndaloon Baye Fall yëpp dañ ko war a xam. xam ngeen luy xëy moo xam ne ku la gis respecté la loo ko wax mu def nee nañ sëñ Moustapha Fall gouverneur rek ministre rek tubaab ak yiifiire ci yem àggoon na ci sëñ Tuubaa ak wekk sëñ Tuubaa foo xam ne loolu la ko yàlla delloo ku mas na defal nangam nga def ko te doo teg te xanaa xamaloon ne boo dee liggéeyal sëñ Tuubaa te gëm ko noo wegee sëñ Tuubaa rek koo dajal noonu la lay wege loolu sëñ Moustapha doon jàngale foofu sëñ Tuubaa noo ko wege koo dajal noonu la la yow waaye boo nee weg naa ko te ku dajal yow yëpp la du dëgg nee na ba kooku ne sëriñam yaay buntu xam-xam yaay baabul ulóom nettali naa ko nee na sëñ Moussa moo jóg ne jóor bi ay eh, yow laay wax àggal suuf te mu koy soog gis waa ji ne cuub àgg suuf <laughs> sëriñ cëpp ngi nekk réew sëriñ Moussa ngi toog sëriñ Moussa dem ba ci sëriñam nuyu ko ah, waaye taalibe tuddoo ko ni yomb na waaye murid dëgg dëgg dëgg la mu doon nañuy nekk li ñooñu li tax sëñ bi ne ma nekk li sëñ Moustapha xam na ko sëñ Moustapha daal ñëw ba ci sëriñam moom sëriñam bi muy wax baabul olo ñëw nuyu ko nuyu jaar ci santam ne ko faal laa sant mu ne ko faal mu ne ko xanaa xam nga ne lislaam ku ci nekk foo dajeeg doomi Sëñ Tuubaa yaa war a nuyu ko xam nga loolu <laughs> <laughs> kooku kenn la te kooku xalif général la boo xam ne ma leen waxoon kan la du ngeen ko gëm mu ne ko ah mu ne ko nañ jógal ñi dem nuyu ji sëñ Moussa Mbacke sëñ Moussa Mbacke jóg taxaw mu ñëw nuyu ko saafanteeg moom sëñ Moussa Fall gunge ko ba mu àgg àggaat fa mu toogoon mu ne ko jërëjëf daal gestu ni nga bi yow nag laay waxal ba ma dégg ci sa baat yow yaa ngi wax baabul ulum baabul ulum sant bu mel ni man lay ànd kee baabul ulum Cheikh Moustapha Mbacke te barki Serigne Touba Serigne Moustapha la bari xam-xam Babul Ulum mooy Serigne Moustapha Mbacke waaw ya. da da ngay da ngeen di xool njàngat mu am ci diggante boobu ak li nekk ci moom am na benn bés benn tubaab ñëw na ko da ko bëgg a tabaxal étage waaye Serigne Moustapha ak taalibeem kenn mënu ko xam fu mu yem Baye Ibrahima boo nee na ab tubaab ñëw na fii ne ko dama lay tabaxal étage boo xam ne da ne ci kaw léeg-léeg yi nga xaw leen a bàyyi fii na di dal mu ne ko ah man ku ma fekk may yéeg escalier lu may wax man genn xeetu yéeg bëgguma ma ah, waaw yéeg escalier sax day mel ni kawe kawe la ci man bàyyi ma ma ne fii suuf rek waaw gars yi taalibe googu taalibu googu ñu ko yor bariwul de kon nag sëñ bi loolu la waxoon nu nu barkeeloo ko sëñ Moustapha Fall yàlla nañu yàlla tas ci barkeem bu yaatu ndax moom de mënoon na ma ne waxtaanee ci sama gis nga loolu mënoon na ma ne wax ak Serigne Assane waaye daf ma ne wax ak sëñ Moustapha mu jiiti njabootu Cheikh yi ginnaaw Cheikh yi kon seen dégg googu ñu am yàlla nañ ko yàlla defal ñun noo ngi sant bu baax a baax nag. di si di ko siyaare di ko ñaan bu demee ci sëñ am bi mu àgg fa yar bi fekk ci mbooloo ak sakku mu ñaan ñun ñëpp saa borom defal ñu ndimbal ndax léegi la ma wax fii ne ko sëñ am di nee na royu kenn man mag na rek te nag ñun ñëpp nañ dellu ci lool de royaat mag ñi ndax kat loo fi andi muy lu yees genn nangu du ci am kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dañ doon jëfe di gërëm sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh